بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima sawtul islam barnaamijun diiniyun tuqaddimuhu al aimatu wal ulama bi sénégal wa fi l microphone al imam ousmane sarr wa fi tadris al imam alaji mbay ndiaye wal oustaz aliyun omar sarr al ixwatu wal axwatu mushahidun assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh imam assalaamu aleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. imaam asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi jàkkeeloo ñun gannaaw bi ñu leen nuyoo ndokkeel leen ñaanal leen jàmm ñu ngi di sar yéen di leen siyaar di leen ñaanal jàmm subhaanahu wa taala mi moom jàmm yal nañu yàlla boole jàmmal di ñaanal njiitu réew mi ak ñi koy jàppale yëpp nag. waaye di ñaanal njiitu kër gi di RTS ak ñi koy jàppale di ñaanal sunu techniciens yi nga xam ne ñooy ànd ak ñoon ci biir eh, waxtaan yi nga xam ne moo di kaddu l'islam ñu ci ànd ak Adja eh, Daba Kébé madame si ak eh, ki nga xam ne mooy Adja Jar Gay Gay madame Gay ànd ci ak Cheikhou Omar gi Cheikh Omar Gay Cheikh Omar ak Moustapha Sank ak euh, Moustapha Ndiaye ak Ibrahima Sène ànd ci Jibi Fall ànd ak euh, Modou Fall ànd ci ak euh, Cheikh Tidiane Sène ñu ñaan ngeen ci biir waxtaan ba ngeen mën koo seetaan ni ngeen koo bëggee di ñaanal njiitu kër gi nga xam ne moo di Alaji Thierno Ka di ñaanal tamit imam Thierno ki nga xam ne imam Mor Diakhaté waa ak soxna si nga xam ne moo di Maymouna Kane di leen ñaan jàmm yàlla dolli seen jàmm ak seen xéwal yëpp nag kon mbokk yi ànd ak ñun ci cadre islam ñu daal di ànd ak imaam Mbaye Ndiaye mu jox nu li mu ñu indi imaam bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baay Usmaan ñi ngi wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi lay nuyu di la siyaare bu baax di la ndokkeel ci bisu asura bi nga xam ne moom la ñu génn di ñaan yàlla yàlla may ñu ñu fekke ay déwén te déwén yi dàq ren yàlla wéral bu baax a baax yàggal la ci sunu kanam ci kanam njaboot gi ñu ngi nuyu imaam doctor Alioune Sarr Alioune Omar Sarr di ko siyaare moom itam ci at mu bees mi Baye Ousmane di nuyu imaam yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci Sénégal ci quatorze régions yi ak quarante six départements yi rawatina nag imaam ratib yi nga xam ne ñoom ñooy jiite jumaa yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel Baye Ousmane ci at mu bees bi ci turu association nationale des imams et ulama du Sénégal nga xam ne président bi tey mooy Alhaji Omar Diène ak ci turu bureau exécutif bi yëpp di leen ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan yàlla wéral leen lépp lu ñaan ci lu at mu bees mi yàlla na ko yàlla subhanahu wa nangu rawatina ñaan yi ñuy def ci réew mi yàlla def fi jàmm yàlla def fi naataange yàlla def fi déggoo yàlla defal def fi mucc ak mucc muccule yàlla mi borom lépp di borom kun fa yakun yàlla ñu yàlla nangul ñaanu imaam yi ak seen taxawaayu rafet yi nga xam ne ñi ngi ko taxaw ci wetu njaboot gi ci biir réew mi yëpp yàlla yàlla guddal seen fant yàlla wéral leen Baye Ousmane di ndokkeel itam nag waa RTS yëpp comme ni nga ko waxee muy directeur bee ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ci at mu bees mii nga xam ne mooy atum jullit ñi mi ñu dugg Baye Ousmane di fàttali rek di fàttali suñu bopp comme niñ ko waxee woon ci émission bi paase ci at mu bees moom bu duggee kenn ku nekk ci war naa defaat bilan yàlla ñu yàlla may ñu fekkee atum déwén xaaj bi jëm déwén yàlla ñu ko yàlla defal ñu bokk ci waaye yàlla ñu yàlla baal jéggal nu sunuy rëcc-rëcc ci at mu màggat mi paase te yàlla jubal nu ba lépp lu ñu def ci at mu bees mii ñuy dugg mu neex ko yàlla gërëm ko yàlla taxawuñu ba mission bii nga xam ne moom la ñu nekk muy mission daawa mission waaraate mission jubal mission jubbanti yàlla may ñu résultat bu am solo yow miit ñu ngi la koy ñaanal ndax gis nañu émission yi rajo yi télévision yi ni nga ci taxawee daawa rek te yàlla tax li fi mag ñi bàyyi nga téye ko dara bañ cee yàqu loolu moo tax boo manee def soo mënut def yàlla yàlla guddal sa fan Baay Ousmane ñuy fàttali ñëpp nag ne at nag bu beesee dafa am lu lislaam di santaane muy azakaat asaka asaka yi dafa nekk farata ndax bu ñu defee xawaidul islaam alxam alxamsa bu ñu xoolee defe naa ne ñetteel bi ponk bi asaka la kon asaka boo amee nisaab danga nga koo war a génne bu ñu demee ñi nga xam ne ñooy génne asaka bu ñu ci borom xam-xam yi ndax détail bi ak tas bii du xaj ci li ñu am ci émission waaye dañuy junj rek point yi nga xam ne moom moo war jullit ndax buñ nee lii farata la xawaidul islaam alxamsa ñu ne ponk lislaam juróom lañu asaka mooy ñetteel bi ponk bi kon kenn ku nekk war ngaa fonk loolu boo amee alal da ciy génne asaka asaka boo ko génnee dafay laabal alal asaka dafay barkeel alal asaka dafay fulandi alal waaye ñi mel ñi nay ba mel ni man foog nañ ne bu ñu génnee asaka seen asaka seen alal day wàññeeku déedéet day sellal bakkan day sellal bakkan imaam nee na asaka it day sellal bakkan kon asaka li muy def ci nit dafa am ba dafa am solo waaye asaka it dafay indi jàppalante ci diggante jullit ñi ndax ki nga xam ne amul alal nga jox ko asaka mën naa doxe ci asaka jooju mu di ci liggéey ba bu déwén dellusee see moom itam mu génne alal gis nga bàyyi Ousmane jullit ñi bu ñu jàppalante woon organisé wu ci asaka dinañu dem ba ñàkk dootul am bu ñu xoolee Omar ibnul Abdul Aziz nga xam ne moo nekkoon juróom-ñetteelu xalifa ci jamonoy xulafa aw rachidun euh, ci jamonoy yonent bi sallallahu alayhi wa bi yonent bi génnee àddina nga xam ne dawlatu umawiya dañu andi ay xilaafa xilaafa mu ngi nekkoon juróom-ñetteelu xalif ci euh, banni umaya waaye bi ñu seetee saaba yi ñi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw yonent bi nekk ay xolofaa yëpp nga xam ne xolofaa yi arbaa lañu dañu bëgg ne bu ñu fekkoon dañuy tànn keneen ku leen juróomeel Omar ibn Abdul Aziz la ñuy tànn mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax lan sellalam nga ndax moom digganteem mag yonent bi xaw naa soree tuuti soree na waaye nag fekkewul jamonoy yonent bi moom Omar fekkewu ko waaye nag fekkee na jamono yi saaba yi mooy xulafaa raasi am na ñu fekkee jamono ndax boobu fekk na mu juddu waaye bi muy nekki xalifa nag boobu fekk na xulafaa raasi doon jàll nañ bu yàgg waaye jëfinam ju sell ak jëfinam ci sunna ak topp njàngaleem yonente bi moo tax ñu ne buñ doon tànn juróomeelu xalifa moom la ñuy tànn bi mu ñëwee ci mag fekk fa ñàkk dafa dëgër ci asaka taxaw ñu génne asaka comme niñ ko war a génnee ba Fatima bi nga xam ne moo nekkoon soxnaam nekkoon famille ci royal bi sax def koo poñe ne ko da ngay génne ci sa or bi asaka bi mu génnee asaka muy joxe asaka yooyu ñaari at dem na ba Makka Medina riche na boo xam ne ni dañuy wër sax kan la ñuy joxe asaka ndax amatul ku ñàkk asaka yooyu ñu doon génne di ko jox ñeneen ñu ci liggéey noonu la woon waaye ni ñuy génne asaka noon fii doy na waar boo génnee asaka jox kii 1000 francs jox kële 1000 francs loolu tam ne li gën baax na gaa waaye li gën nga jox ko kenn ñaar ñett ñoo xam ne dañuy am départ ñooñu bu déwénee ñu génne jox ñett keneen jox ñett buñ ko organisé woon ci Sénégal mën nañoo dem ba ñàkkte bi gën fee wàññeeku waaye Baye Ousmane bu ñu xoolee borom alal yu bari am na ci ñoo xam ne du ñu génne am na ci nag ñi nga xam ne wax dëgg si yàlla dañuy génne asaka bu ñu xamut niñ koy génnee dañuy dem ci imaam yi laaj leen nan la ñuy génnee asaka ñu génneel leen ci seen alal jooju asaka ñan lañ koy jox ñu ne leen ñii ñooy ñoom parce que alxuraan lim na juróom-ñett ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jox asaka xajul ci émission bi moo tax mënuñu ko wax te aaya alxuraan moo ñëw wax ñu nett li ñu ñu war a jox asaka kon daal nañu góor góorlu ci asaka yi ñu génne ko xam ne farata la ku ko génne def nga farata ku ko bàyyi bàyyi nga farata ndax da ko da ko war a génne comme ni nga ko waxee dafay sellal ruux ci borom alal ji waaye dafay sellal alal ji ji nga xam ne nii moom nga génne asaka jox ko keneen ki nga xam ne way ñàkk lañ ndax ki ñàkk kat dafa toog ngir nga jox ko li nga xam ne moom la la yàlla sant ndax moom tegul boppam ñàkk yàlla subhaanahu wa taala moo ko teg ne ko kat sa alal fii lay yem sa risque fii lay yem kon yow mi yàlla defal xéewal ne sa alal dana bari di nga nekk milliardaire di nga nekk millionnaire te ki nga koy jox gënoo ko yàlla sant na defal ma nangam soo ko defut gërëmoo yàlla kon gërëm yàlla dafay bokk ci li mu la sant nga defal ko ko soo ko defee rek incha allahu taala di nga am li nga xam ne mooy ngërëmal sunu borom bi subhanahu wa taala kon nag at mu bees mi ñëw na ñi daan génne at mi ci maanaam muharram asaka di weeru tamxarit nañu génne asaka yi jox ko am na ñoo xam ne ñu ngi koy génne ci weeru koor parce que at ma at la ñu wax ñenn ñi ci saabaan ñenn ñi ci rajab ñeneen ci ramadan yooyu yëpp ay at lal date la boo xam ne rek dañ ko waaye li ëpp nag at mu bees toujours la ñuy jàpp ñu génne ci asaka kon asaka yooyu ni ñu ko génne jox ko ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko yeyoo xataa demoon nañu sax ba ci jamono yonent bi ak ci jamono xulafa doon yi dawla islamiye dañ doon organiser ay kër yoo xam ne moom la ñuy moom moom la ñuy dañ ci asaka yi boo demee ci réew arab yi ci baree baree bari bari dañu organiser ay association ay ONG yoo xam ne dañuy génne asaka di ko dajale pour mën a dimbali gaa yi nga xam ne nii ñoom ñoo ko yeyoo ndax ñoom itam bu ëllëgee ñu mën a génne asaka Baye Ousmane daal société société bi ñuy wax solidarité la solidarité solidarité mooy tax lépp baax comme yàlla ni mu ko koy nettalee taawanu alal birri ba ba aaya bay jeex buñ ko defee rek incha allahu taala xéewal mën naa am kon yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp ñu ngi siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp di ndokkeel nag ay auditeurs yu nekk ca Bari Ndondol ku mel ne suñu rakk Mansour Ndiaye suñu mag Pape Amadou Ndiaye ak Mor Ndiaye ca Bari Ndondol ñoom ñëpp ne nañ duñu tardé émission bi ñu ngi koy déglu ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel itam ci at mu bees mi di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf imam Alaaji Mbaye Ndiaye ci kàddu yu rafet yooyu nga xam ne moom la indil ñuy jàkkaloo ñun ci ak fàttali wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin eh, kon weeru tamxarit bi taxaw na mu ngi nii weeru dajale sa alal dal ko xisaab li ci moomul muy asaka ji nga jox ko ñi nga xam ne ñoo ko moom kon lu mel ni am atam lëmm yaa ngi liggéey di dajale commerçant nga wala ngay dem di def yeneen ni mbir wala da nga doon liggéey xata fonctionnaire yi eh, liñ doon denc gannaaw bu ëppee seeni solde ndax xam ngeen ne fonctionnaire dañoo bokkul ay catégorie am na ñoo xam ne liñ leen di jox ëpp na li ñuy dundi par ba tax na bu at am na luy nekk ci seen gannaaw ci biir dencukaay banque yi ñoom ñoo ñu lépp ne loola nañ ko génneel asaka ndem nekk na ñu gëm na yàlla te li nga wax ci asaka asaka li muy defar dafa bari Euh, rawatina li nga mujj wax ci ab société ndax euh, euh, société bi seen bopp bu ñu génnee asaka dimbali société bi seen bopp ndax way ñàkk yi ñu ngi bokk ci société bi kon doo ñëw bu ñu génnee li ñu am jàppale leen bu yàggee société bi day gën a baax loolu moo tax ñu ko ti almuhtaajuuna yi kon dañ ko eyo bokk ci yàlla moo leen ko jox yàlla nag bu ko joxee jox la alal ji mu jaar ci yow defoon li mu la sant defoo li mu sant ah yàlla moom ni muy eh, sanctionné moom rek moo ko xam man ngaa dem balaa déwén mu nangu ko doo am dara doo xam foo àll ji dugg ndax da nga sànq mbir mi loolu loolu mooy wax yemmaku law riba yooyu day am dangay ngay toog ba yegg rek ñu ne diw de moo fi boo naa la àll moo àll ji jeex na benn da toog rek dugg ci ay mbir yoo attanut àll ji jeex man naa am kenn ñëw rek dal ci sa kaw jël àll ji bu dem yoonam yàlla mën naa lakk alal yi kon santaane yàlla bii nan ko def ñi ci am yëpp bu kenn xeeb li mu am yow yaa ngi toll ci fanweeri junni nga am bi bi bi wee at mi jeexee fanweeri junni yaa ko récolté ko génnee ko fanweeri junni koo ci jox ñeenti téeméer mu kontaan ndax fekk na kooku amu ko jërëjëf imam Alaji Mbay Njaay imam euh, Oustaz Alioune Omar Sarr ah tey na kaal gërëm na. waaw xam naa daal lii am na lu Mbaye Ndiaye wax xam naa boo demee da nga fay dem màkk te yóbbu na la waaw kon nag euh, kon nag bisimilah la ji Omar Alioune Oumar Sarr li ngeen di bokk yi jàkkal la ak ñun bisimilah bismillahi arrahmani irrahim walsalatu walsalaam ala acdami rusulih sayidina muhammadin albashir nadir wa ala alihi wa sahbihi wa jamici alanbiyaai walmursalin jërëjëf al ustaaz alkarim ci li nga xam ne moom nga andi oustaz imam Mbay Njaay waaye itam al imam al oustaz Ousmane Sarr ñoo ngi lay ziyaara di leen ñaanal yéen ñëpp jàmm ak wér ak tawfiq ga aafiya ci mboolem seen mbir di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu fu ñu nekk ci dendu àdduna bi eh, di am mbégte dellusiwaat bokk ak yéen plateau bi eh, di ziyaara nag suñu waa dëkk ba comme waa Thiarène ni ko imam Mbay di waxe ñoo ngi ziyaara al imam Mouhamadou Mor Sarr waaye itam uh, borom dëkk ba di uh, Mamadou uh, Sarr Amadou sar ñoo ngi koy ziyaara ak mboolem ñi nga xam ne ñooy taxawee diine jë ak société bi foofu waaye jagleel al docteur Mbacke Sarr fi ci Ndakaaru ak ziyaara bu wér ak ki nga xam ne mooy Pape Dergen Mbay waaye du ñu fàtte suñu ñaari jigéen ñuy wax euh, Khady Samb ci Parcelles Assainies waaye itam Seyni ni niki noonu Adja Buyo Dieye ak Adja maam Fatou Dieye al oustaz Cheikh Gaye Sëñ ci Codé ñoo ngi koy ziara ak mboolem njabootam ak mboolem ñi ñu déglu fépp fu ñu nekk ci àdduna bi kon li nga andi am na solo lool kon ñoo ngi won ci al muharram comme niñ ko waxe woon weeru tam xaret nekk weer wi nga xam ne mooy weer wi jëkk ci atum jullit ñi mu doon loo xam ne nag lu ñu war a yittewoo lu ñu war a bàyyi xel la ci orma bi ko yàlla jox waaye itam jox ko gëdd en tant que calendrier jullit ñi gis nga la plupart dañuy sàgganee li nga xam ne mooy li ñu moom di ngoy ci li nga xam ne dañ koo jëggaani ba far mu remplacer li nga xam ne mooy suñu cër kon bépp jullit war na yittewoo xam calendrier bi nga xam ne ci la li ko yàlla sant yépp ci lañ ko tënk gis nga pratique yeeg farata yeeg lépp li nga xam ne dañ koy def ci ay yeddawoog euh, nangam ki nangam yooyu yëpp dañ ko war a tënk ci li nga xam ne mooy calendrier jullit ni euh, bu loolu amul rek daañu benn daañu réere suñu diine waaye itam dañ ko soofantal daañu bàyyi li nga xam ne mooy suñu ànd ak suñuy valeur kon loolu tax na ñu war ko bàyyi xel te itam xam ne war ma boobu moog yeneen weer yi mu ko bokkal dafa tax ku ci def bàkkaar bàkkaar ba daan ya day gën a foor ndax jamono ju mag boo ci defee bàkkaar bàkkaar ba day gën a garaaw ak place bu mag boo fa defee bàkkaar place ba day gën a garaaw euh, ki nga xam ne itam eh, yàlla da koo jox ab cër séparé ko ak ñeneen ñi bu defee eh, ab faute wala ab erreur boobu itam day gën a garaaw parce que ni mu toll noonu la mbir mi di toll loolu tax borom bi subhanahu wa taala wax nu ñe ne eh, yaa nisa annabi lastunna ka ahadin min a nisa yéemu leen ni ñeneen ñi kon nag attention bu ngeen defee ay ay ay ay garaawaali de si double sanction yi kon muharram ak weer yi nga xam ne ñoo bokk worma boobu nañu éviter euh, di ci def ay bakkaar ak i njombi euh, de façon exceptionnelle waaye nag tout rek ñoom la ñuy tànn bu jeexee ñu def lu ñu neex kon worma bi ak ñàkk moy gi dañ ko war a euh, def ci weer yépp waaye nag ñu gën a sàmm wanteeg weer yi nga xam ne yàlla ci boppam moo leen jagleel beneen xorma kon loolu lu mat a bàyyi xel la beneen bi mooy eh, ñu moytu itam feeg dafa màgg ñu de ci def ay pratique yoo xam ne l'islam nanguwu ko xam naa sax eh, eh, dañ ma wax ne bésu tam xarit bi passé na reer yi passé na taajaboon bi passé na waaye nag wax liy jëriñ moom amul temps wax luy jëriñ amul temps moo tax dañu ko wax rek dañ ko fàttali mooy dañuy faral di feetoo noo xam ne du lu ñu lislaam sant loolu nañ ko moytu moo xam ci suñu feeti diine la wala feet yoo xam ne euh, duwul feetu diine feetu euh, yu nu jógee la ci beneen société loolu yëpp nañuy moytu di ci dugal loo xam ne du euh, li nga xam ne mooy lu yàlla tere parce que bésub tam xaret nga nga góor sol colaayu jigéen jigéen sol colaayu góor ngeen di turubale ci dëkk bi ci quartier bi ñi bëgg a sàcc sax boole ci ay ay ay ay ay loolu yëpp duur loo xam ne l'islam bëgg na ko beneen point bi may daanelee mooy euh, at mi jeex na wala mi ngi tàmbali at mi passé nit ki war a càmbar war a auditer boppam lan laa fi def lu baax ma war ko yokk lan laa fi def ci lu ab safaan euh, ma war koo jéema tuub war koo effacer war a góor góorlu ba la ma daloon dootuma dal loolu yëpp dafa doon loo xam ne dañ koo war a def taxaw seetlu mu doon ab càmbar boo xam ne nit ki daan ko def ci at mi passé mu xam itam ne at mu bees muy ñëw dund yokku la kon ab paa la pour nga jege sa ajal pour nga da nga jëm ci dee eh, kon nag koo xam ne yaa ngi avancé jëm ci dee ah bu dee kontaan ngay day war nga <laughs> kontaan mi war nga koo tempérer ndax da ngay avancer jëm ci dee euh, loolu kon lu mat a bàyyi xel fi may daanalee mooy fii nga xam ne oustaz foofu la gën a accès waxam mooy ñu bàyyi xel ci azakay ñi nga xam ne dañoo tànn euh, at mi buy jeex wala débuté at bi ñu def euh, ñu génnee seen azaka nañ ko génnee te jox ko ñañ ko war a jox ndax kat da nga gis koo xam ne buy génnee azaka yaama neex la koy def da nga gis koo xam ne sam noon la wala sax nga koo mere waaye bu yeeyoo asaka yow nga ko koo war a jox indépendamment ci relation bi dox seen diggante parce que yow yàlla moo ne la génneel joxeel kii yeeyoo duut yaa koy atte ci ni mu la neexee nga jox ko loolu di benn ba ca des kon mooy euh, li muy jëriñ dana sellal wax ngeen ko dana sellal alal ji waaye dana sellal bakkanu ki koy def ci li nga xam ne mooy ay tilim tilim ak i bàkkaar loolu euh, yaakaar naa ne ñun ñëpp li ñuy war mooy euh, tazkiyatu nafs ndax qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha kon ku teexee mooy ki sellal bakkan ci façon yëpp waaye itam mooy ki sellal bakkan ci joxe azaka waaye itam ki texewadi ki perte mooy ki tilimal bakkan ci ñàkk génne azaka waaye mooy ki tilimal bakkan itam ci faggu ay bakkaar ak ñawtif kon loolu laa ci doon eh, indi di ko ci yokk ci li nga xam ne yéen ñëpp wax ngeen ko mu doon eh, ay commentaire yu leer nañ di ñaan yàlla rek yàlla may ñu teewe ko ay at yu bëree bari mu doon ak yokkute ci diine ak yokkute ci ragal yàlla ak yokkute ci lépp loo xam ne danañu tax yàlla gërëm ñu àdduna ak alaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf imam ustaza Alioune Omar Sarr ci li mu indi ci ñi jàkkalu ñun li mu leen indil ak lim ñu indil ñu ñëpp mu ne am na solo ci lii imam Mbaye Ndiaye doon wax yëpp rek ñoom ñim ñu bokk li ñu wax mooy at mi jeex na dugg nga at mu bees seetal ba sellal sa at mu bees mi nga xam ne moom nga dugg lii la yàlla sant fexe ba def ko Euh, bi ci raw nag mooy fexeel ba yow mii am yow mii am génneel asaka xam nga asaka ponkal ci euh, ponk yi juróom yi waaye ponkal boo xam ne yàlla dafa ko jagleel ay doomu aadama ndax ñëpp mu génne asaka yéen a ngi dégg fuqaraawu masakin kon da koo jagleel ñii am kon ñii am at mi jeex na nañu seet li ñu am ñu sellal ko jox fuqaraawu masakin kon kàddu jàmm a ngi ñëw fi mu jeexale euh, di ñaanal jàmm mboolem ñi ànd ak ñun Eh, njabootu alaji Lamine Sakho ak eh, imam mu Mamadou Ndiaye ñu nekk ca Daara Jolof waaye di ko ñaanal ki nga xam ne moo di njabootu alaji Cheikh Diop njabootu alaji Ali Ndiaye njabootu alaji Dame Diop njabootu imam eh, imam si mu nekk ci Ndakaaru waaye alaji yan ma loo tataami aja Aida Faye aja Caroline Sarr Thiaroye Assire waaye ajaawuli mata ajaawuli mata mbay mu nekk ci mairie bu ndakaaru abdoul dem ak sarlot mendi ñu nekk ci l'hôpital bu caaroy fatim ndiaye mu nekk ca bordeaux mariama mbodj mu nekk ca france waaye karfan kande mu nekk ca paris ñoom ñëpp leen jàmm waaye nag aja aida si mu nekk ci sibakotaan kenn du ko fàtte docteur alaaji musa taw idrissa taw baye jéy bay màgg jéy waaye alaji Samba Sall moo nekk ca Nouadhibou ñu leen di ñaanal jàmm fàttiwu ñu nag ñu nekk nañ ci Arabie Saoudite ñoom ñëpp bari ñu kenn ñi nga xam ne ñoo ànd ñun waaye ñi nga xam ne ñu nga nekk ca société Amadore ca Italie waaye man ñi nekk Mali Mauritanie Guinée Bissau di den ñaanal jàmm kon kaddu l'islam mu ngi ñëw fi mu jeexale ak yéen waxtaan wi di eh, kaddu l'islam di ñaanal njiitu réew mi ak ñi ko jàppale yëpp waaye nag kilifa yi diine ak aada yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm yàlla yokk ko seen fan ak seen man wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu